naa leen ñëwul ci cuune Macky Sall ak ni leen Macky Sall ni mu nuulee xaw ma dafa nuul xaw ma dafa xam naan maa tey man seen ne sais pas xaw ma mais damay ñëw ci sëñ Bass Abdou Khader ba pare porte-parole des Mourides démb dafa toog wax ñépp dégg nañ li mu wax jarul ñu ciy jaar bon parce que dama bëgg dafa am lu mu fàtte ci waxam lu mu fàtte ba muy wax dafa am lu mu fàtte lu ëpp important discours bi yëpp bi mu xalamal Macky Sall dafa am lu mu fàtte xalamal bi am na ci droit loolu moom la même bu doon dafa far sax APR bokk APR am na ci droit man amu problème boobu mais dafa am lu loo pàtte ndax xaadimu rasool noonu la yare képp kuy murit bul di xalaat sa bopp del xalaat la population dama bëgg sëñ Tuubaa ba mu demee ci tijaan yi avant muridulaay di am te dem na ci tijaan yi xool leen dëglu tarbiwu dégg fa lay lay la muhammad la mu dem ci xaadira yee tarbiwu ci xaadir la njëkk sax tarbiwu dégg fa laa ilaaha illallaah muhammad rasulullah mais mu ni mais ñaar ñii ñëpp laa ilaaha illallaah muhammad rasulullah la ñuy oote lan moo tax ñun ñëpp du nekk muridullaahi demandoo ci yàlla rek ñun ñëpp nekk benn kon sëñ dafa boole ñun ñëpp ay muridullaahi lañu mais ba ngay xalamal Macky Sall télévision yëpp toog occasion bu rëy boobu xalif xalif bi toog nga xamante ne loolu kenn du ko weddi ñeppay nan li mom ñëpp a ko déggandoo comme ni ko journaux yeb defé à la une aujourd'hui lan moo tax 1800 détenus politiques la pourtant 1600 yeb c'est des mourides wala ñooñu danoo bokk Pastef wala da am leen naqar ci dëkk bi moo tax ñooñu nekk ñu ay lay kenn du leen tuddu kenn du leen jëm sauver pour man là-bas foofu occasion la pour sauver ceux qui sont en prison pas pour di xalamal président lo xamante ñun ñoko ko suñu alal ni ko defaral ñu mu def nga kay tag te mu jël ay nit lor leen pour man ñi ñu lor ñi ñu lor la ñu waroon wax foofu premier sujet ñi ñu lor ba mag jox leen kàddoom ni ñëpp di leen génn ba pare un ngeen door kan nag xalamal li mu def mais am na ay sëtu sëñ Tuubaa yu nekk biir Tuubaa yu ñu jàpp jàpp leen tëj ci kaso bi kenn tudd leen foofu parce que lan faruñu APR bon bëgguma sori foofu quoi man du ma dugg ay affaire juste dama la doon def rappel pour loolu noonu léegi beneen bi Macky Sall ak moom xalamal Macky Sall yow Macky Sall laay waxal nag ak ak nguuram gouvernement am seen cuune xamoo leen dara toog di guuxi lex yaakaar ne dangeen ngeen fee toj dara xamu ko nulaat plus nul que yéen gisuma ko Touba lu toll ne Touba Mbàkke dëkk dina am lu mel ne Touba Mbàkke te dëkk bi sëñ Touba liggéey loo xamante ni sa dëkk bi bu amee ñu muus tuuti liggéey tax la jug ñu musa nga bëri ñu ay sax mais liggéey tax la jug Touba dina indi ay alal gudul jeex Sénégal chaque année économie bi muy dugal kenn du xam nan la toll Touba da ngay jël investissement bu dëgër këj nga def ko fa def pavé dëkk bi yëpp ngay pavé suuf doo ko fi gis dëkk bi yëpp ngay pabe mais mën na nekk ngay ñëw ay émirat gis lu toll ni niw ma la région sax ay lu mat ay sept six huit région lépp la ñuy pavé lépp doo tali pavé doo gis sax suuf Touba site touristique bu amul fenn nga koy def bu amul fenn ku bëgg a visiter nga def coin yu bari yoo xamante ne pour visite guide yaa ngi fa Baye Fall yi murid yaa ngi fa xam histoire bay bëgg a boo ñëwee foo toll foo jóge mën nañ ànd ak yow mais voie routière bi ñuy jaar nga war a yombal wut moyen yu bëri yoo xamante ni voie routière la yoo xamante ni moo leen di fu ñu bëgg Touba waruñu foofu woon taxaw sax naan inondation ay inondation kenn waru ko woon wax heure bi dëkk bi yëpp pape nañ ko def fa ay canalisation bu tawee ndox bi yëpp génn du romb sax ci dëkk bi kër yi fa xaw a ñi kii yëpp ngeen réfectionné waat ko ladde guerre ba nekk noonu zéro mètre ngeen naan Touba amul ndox Touba ndox bu neex amu fa ba pare ngeen toog di xalamal Macky Sall de man des fois damay toog fii ñun ñi gën a minime nga xamante ni suñu alliwu àggul fenn fenn àggu fa voyage yi ñuy voyage di tukki rek xam na ni sax lii ñun buñ ñu ko waxoon exemple laay joxe de ñun sax toog nii ñu posé ñu question rek mën nañ tontu sax ni Touba ku ko defoon lii dina génne alal gu dul jeex Sénégal nga jógee fa defi ko Tivaouane même chose defi ko Ndiassane defi ko ci dëkku Laayeen yi Yoff parce que site la yoo xamante ni nit ñi dañ koy visiter visiter visiter visiter te da ko war a réfectionner waa réfection boo xamante ne jaay ko ba monde bi ñëpp vacances dañuy ñëw sax di vacances di am bi ñuy dal di visiter xaalis yu bëri dugg Sénégal. Mame Mbaye Niang ana mooy ministre de la touriste ministre du du tourisme Mame Mbaye la ana Macky Sall ñuy naan ay defar na pompe man ma déggee ñu doon ay defar fi pompe ak ay ba ñu ba ñu ŋàccee ndox bi feek li nga dugal ay milliards ca Touba li mu dugal Touba ak milliards ana milliards kan moo ko gis bu tawee dëkk bi ñëpp di xuus ci ndox Émirats arabes unis Cheikh dina toog gis population benn doomam di xuus ci ndox benn benn bu ko gisee benn wallaay meeru dëkk boobu doo toog def kër àdduna dans la vie da ngay jël ses précautions ma déggee ñi xalamal Macky Sall man damay toog naan Sénégal wallaay lazim ranké torox tàng torox tànge gii la nar dundee ba dee bu nekkee Macky Sall Touba la fa am ci problème yépp nit ñi di ko jooy ba ba léegi ñu toog di ka tagg naan ko toj nga fi yaa fi def léeg-léeg lii si laa ni non on a un problème dëkk bu mel ne Touba amul benn dëkk bu ko dëkk yi ko am fi màqa ngay gis mu am fi ñuy ajee màqa mooy màqa màqatul mukaram moo am loolu wala nga ñëw juma Cheikh Zayed bu émirat te Touba ke ëpp bës foofu Touba buñ ko defaroon ni ko war a defaree def ci xaalis defar côté yeeg la wër Touba lépp defar fa site touristique yu amul fenn Touba xaalis bu dul jeex lay dugal Sénégal ñu jël saa yu tawee ñu ni taw na ndox amu fa ñee dañuy jëndi ndox bu nu gasee sedd la honte ñu toog naan ay Macky Sall président la par exemple Ousmane Sonko ñu tëj ko ci kaso bi te ma delluwaat foofu parce que loolu duma ci mës a jug ñiy toog di def débat toujours naan noo anamu lu mu deex deful kii Ousmane Sonko dañ ko jàpp ci lu dul dëgg tëj ko ci lu dul dëgg te bu dee woon tey ñaanuñu ko yàlla de mais chaque jour j'ai peur chaque jour sama xol fees del tooy dañuy xaar nag ba mu dee Macky Sall door xam ne nekke de dëkk dëkk dina tas te buy tas du armée bi de bu leen yaakaar ci sunu armée bi de wax naa leen ko waxati leen ko homme de tenue yi ni naa la ñun ñoo njëkk a def coup d'état ba Mali defee 2020 ñun ñoo ci topp ñun 2021 la Sénégal def coup d'état ba pare Macky Sall coup d'état na sénégalais bu yàgg généraux yeeg police ak jàndar boo déggee par Abdoulaye Touré de ba ñuy expliquer histoire bi sax ngeen xam ni kon la ma leen waxoon ni ñun suñu soldat yi def nañu coup d'état ba pare jël Macky Sall ni ko tok fi def nañ ko bu yag ah ay commandant bu taxaw gis photo Sonko rek kajji nit commandant bobu mo fi jëlé Macky Sall xalaat ngeen ko ay général yo xamanteni ay nit yuñ tiré ay bal ci mbedd mi ni da ngeen ci gis ñu ci kenn ay set balu fital ci auto dambuj da ngeen dégg ñu japp ci kenn ñoo ñu ngeen naan ala mali jël na Euh, Gabon jël na xaw ma lan ak lan ak Sénégal la njëkk a jël bu yàgg. nekk ay bëri ni naa la on a justice bi gën a bon ci àdduna la ñu yor ñun homme yi am na ci ñu baax de mais amuñu grade mais ñi grade ñi gën a yées ñoo jël dëkk bi téye en otage te la ma waxoon rek naa ci delluwaat tëj sama vidéo lii euh, doomu Cheikh Zayed wax. ci justice la jàng ñun la dëkk boo gis mu développé ñun la dëkk bi dafa développé trop demal xooli sa justice Par maa de ñu naan état état xajul ci nit état dafa fort fii damay toog Émirats nga xamante ne fait partie de deuxième pays le plus sûr du monde à part Islande ma répété waat ko directeur Interpol mooy le général des forces armées kon xam nga ne du moromu ñi du moromu ñi ne ci dëkk yu bëri 90% ci pays yi du seen morom ndax élection la dem reyante ba pays membre yëpp votal ko kon xam nga ne am na sécurité ñoom ñooy wax nee loolu xam nga lan mooy état bu fort état bu fort justice bu fort mooy justice buy jàkkaar ak les membres du gouvernement face ku liggéey ñun la li nga liggéey lan la ku def njaaxum ñu tëj ci kaso bi loolu mooy état bu fort loolu mooy justice bu fort moo toogee Sénégal ñuy naan l'état reste fort kenn mënu ko défier yéen a ñàkk jom ñàkk fayda yéen a ñàkk fayda dëgg vous n'avez même pas honte nit ku tëdd croiser bras nga dem yow yor sa fital sa jaay sa lépp di ko dóor takay naan maa la gën a fort yéen ñi ngeen war a jàkkaarloo mooy Macky Sall et les membres du gouvernement là on va dire que l'état est la là on va dire la justice est forte mhm. loolu mooy justice loolu mooy état bu fort ma ñi ñu jox suñuy milliards ngeen di tourné jàkkaarloog ñoom fu ñu def ngeen dóor population bi yëpp di jubilé naan état bu am doole la ñu am justice bu am doole. ñu ñàkk jom toog tourné seen population ñu leen di watan beneen yoon naax ci BRT bi ak tali foofu